sëriñ bi yow nanga nu may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nu fegali mooy fawaka boole ki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla mi tere deful li yàlla mi digle asal ferul li ijji sax dalul ku dem fi ab jaxam dërëm du la jariñ amub dërëm moo lay jariñ moo tax ku xam te xamul amul koo seeru xam na ab dërëm ba noppi tey wutub dërëm doo gis ku doy xam dërëm wali si dërëm wutil sëriñ bi yow nanga nu may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nu fegali mooy fawaka booleeki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla mi tere deful li yàlla mi digle as aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk téléspectateurs yi safo seen télévision Mafatihul Bichri TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte rek saa su nekk di ànd ak yéen ci seen émission bi nga xamante ne nii yéen a ko bëggal seen bopp muy émission xidma ak l'islam di émission bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy fépp fu waay mënti nekk rek di fa daan sa doole ñu fekk la fa am ak yow waxtaan ci li nga xamante ne ni moom ngay liggéey te it yéemuñu benn métier waaye tamit xeebuñu benn métier ba tax na képp koo xam ne yaa ngi liggéey rek di nga ci yëg sa bopp bu soobee yàlla. tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne ni moom moo di Grand Dakar fekk si fii kuy wuyoo Serigne Mame no Diallo di liggéey ci wàllum li nga xam ne moom moo di jaay kafe. di métier boo xam ne macha allah bu am solo la waaye it bu noble la ndax buñ ne kafe rek xale yëpp day daal di dem ci li nga xamante ne nii moom moo di euh, euh, sëriñ bi wala day dem sax ci li nga xam ne moom moo di yoonu murit nekk lu barkeel loo xam ne mën nañ ne bi sëriñ bi jógee ci tukki bi moom la ñu indaaleel kon xam naa nees tuus rek dañuy daal di ànd ak yéen euh, ànd ak sëriñ Ablaye bu soobee yàlla daal di ànd ak moom rek daal di door li nga xam ne moom moo di yow nanga nu ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nu ifegali fawaka boole ki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla mi tere deful li yàlla mi digle asal ferul li ejji sax dalul ko dem fi ab jaxam dërëm du la jariñ amub dërëm moo lay jariñ moo tax ku xam te jëfewul xamul amul koo seeru xam na ab dërëm ba noppi wutub dërëm Euh, mbokk téléspectateur Mafatihul Bichri TV comme niñ leen ko waxee woon sànq rek euh, tey ñu ngi ànd ak euh, Serigne Mame Thierno Diallo di ko xam ne mi ngi yëngu ci wàllum jaay kafe macha allah fii nii ci Grand Dakar rue 10 tey moom lañ fas yéenee sekk ak moom waxtaan ci li nga xamante ne ni moom moo aju ci métier bi xam naa rek balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi dañ koy bàyyi rek incha allahu mu nuyoo ak mbokk yi nga xamante ne saa si temba ñu ngi ànd ak seen télévision Mafatihul a aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa ilayka tubtu tawbatan nasuha wajal lisaani fi rida fasiha yaamal lahul jamaalu wa tafsiru salli ala man ismuhu wa alihi wa sahbihi wa sallimi wajal bi jaahi ridaka xalami ilayka tubtu tawbatan nasuha wajal lisaani fi rida fasiha ya rabbi kulli wa qutli bi rida garadi wa mal tamassu bi jaahil muntaha anili salli wa sallim alal muxtaari fil kurama wa na bi nazmi afdala rusuli barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di nuyu yan waa Touba euh, Mafatihul Bichri TV ñu ngi leen nuyu bu baax seen teewaay fii si Ridis Grand Dakar si café gi nga xam ne ne lu fi nekk mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa képp moom lañ fi def te sax ñaan nañ suñu Tuubaa tamit képp koo xam ne ne maanaam bokkul suñu yàlla bu mu fi teew ndokk bi ngeen fi teewee di ngeen ba noppi doon loo xam ne ni ngir fësal mbiru sëriñ bi moo leen fi indi mhm. ñu ngi ñaan si barke borom Tuubaa xasida yi lii ñu soobu yàlla na ko sëriñ bi eggali si doolee jalbitu amiin yaa rabbal jërëjëf euh, sëriñ maam Thierno euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci euh, nuyoo bu am solo boobu bu am taalibe bi nga xamante ne nuyu nga ko ak ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak seen télévision Mafatihul Bichri TV waaye xam naa rek balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi dañoo bëggoon rek nga wax ñu kan mooy Serigne Mame Thierno Diallo. bisimilah barke borom Touba Mame Thierno Diallo de moom taalibe Serigne Touba la taalibe Serigne boo xam ne ni sàkkul lenn lu dul ab bi si mbaaxam ak ndimbalam sëriñ bi dimbale ko def ko muy taalibeem moom daal mooy moom si gàttal daal taalibe Serigne Touba la moom Mame Thierno waaw gàttal. ndeysaan ci gàttal euh, Serigne Maam Thierno taalibe Serigne Touba la euh, macha allah xam naa ne loolu am na solo ndax euh, lu dul ak taalibe rek du ñu jariñ mm. kon xam naa rek ba tey dañuy dugg ci li nga xam ne moom mm. moo concerné waxtaan wi di métier mi nga xam ne mm. wax naa ko sànq ci tàmbale bi métier bu am solo la mais it bu noble la ndax njaayum kafe nekk métier boo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ ne métier bu barkeel la ñu bëggoon a xam rek lan moo la dugal ci li nga xam ne moom moo di njaayum café ak it kañ nga ko tàmbali. bisimilah barki borom Touba café gi de Sëñ Touba mi ñu moom moo ñu si dugal xëy ñu xëy rek dugg ca dañ ci am ndigal waaw sama sëriñ. fu ndigal lu jógee. mu ngi jógee si Sëñ Aliou mbakki mu Sëñ Modou Fati Xari sama sëriñ. ndeysaan waaw moo ma jox ndigal. ci café gi. ngir dem sàkku ko ci moom wala da dem. bi la ndigal ne la demal. Euh, defi ko damaa bu ma jébbaloo ci moom dafa ma dafa ma dénk ñaar ne fii kër Sëriñ Tuubaa gi lu fi ne mooy jaamu yàlla ak joxe addiya joxe liggéey moo koy def damaa bëgg boo delloo soow nga nga nekk ci wàllum café gi dana dana baax bu soobee Sëriñ Tuubaa ma ne ko waaw bu ma delloo dinaa ko def mm-hmm. ba ma ñëwee nag si laa nekk yor ko nag di boobu nag dama doon wër jamono jooja mm-hmm. dama doon wër di wër mm-hmm. ba benn jamono ma baawaat ko delluwaat ci moom mu laajaat ma ko mu ne ma boo demee na nga defaat ma delluwaat bu ma delloo jamono jooju muy 2014 bi noonu dugg 2015 2014 ma daal di ñëw ci barab borom Tuubaa bi ma sanc fi barab bi di di fi dundal loola waaye bu ma bu ma bu ma bu ma demee su moom lu ma soññawaat mooy café gi de ñu ngeen jaay ko dañoo bëgg ngeen def ko ni ko Sëñ Tuubaa bëggee woon dant mënuñu ko waaye ñu barkeeloo ko maanaam di fexe mu sell maanaam ne fexe di ko jëlee fu fu wër di ko saytu bu saytu bu wër maanaam nag képp koo xam ne ne yor na lu mu ko weccee ko mhm. ngeen wecc ko ku yorul lu ko weccee ko tamit na ngeen ko jox mu naan parce que lu Sëñ Tuubaa tax a jóg mhm. ñëpp maanaam bu noppee ñëpp xañ nañ ci moo tax it jamono saa ñu ko seggee ba noppi daal mhm. suñu yéene mooy ñëpp a barkeelu ci te luñ ci luñ ciy ñaan Sëñ Tuubaa du xéewal lañ ko si ñaan du xaalis lañ ko si ñaan asafra du xaalis si ñaan xéewal lañ ko si ñaan goo xam ne ni maanaam mbokk teel bi yëpp ko ñoo koy bokk moo tax it loolu ñu ngi koy santaatee Sëñ Tuubaa bi ñu tàmbalee café gi ba léegi maanaam daanaka Sëriñ Tuubaa mu ngi ñu si dimbali si lan mooy si nit ñi la ñuy njëkk dimbale mbokk taalibe yi mooy fu ne la ñuy ñëw ngir kafe gi waaye bu ñu jëlee kafe gi ba noppi dañuy toog tamit di waxtaanee Sëriñ Tuubaa waaw dañuy naan kafe gi di waxtaanee Sëriñ Tuubaa di di di loolu daal moom si gàttal daal. moom moom moom moom xanaa ñu yamanagum foofu dañu delluwaat. jërëjëf euh, macha allah ci leeral yu am solo loolu yooyu noonu nga xamante ne leeral nga ko ñi nga xam ne ñi ngi euh, topp télévision bi. Mm-hmm. waaye sa biir wax euh, dégg nañ ci ne nga ne ndigal nga amoon ci li nga xam ne moom moo di jaayum kafe ngi mm-hmm. waaye ba nga ko tàmbalee dem nga ba ab diir nga daal di koy arrêté. Mm-hmm. ba nga delluwaatee ci sa sëriñ ci la la wax nga tàmbalewaat ko ndax ñu bëggoon a xam lan moo waraloon stand by boobu maanam diir boobu noonu nga toogoon arrêté li nga xam ne moom moo di liggéey bi dafa doxul woon wala da ngaa demoon ba xaw cee découragé wala lan moo waraloon stand by boobu. bu mhm. ko waraloon daal maanaam wër bi wër bi moo xawoon ja euh, moo xawoon kii métti tuuti. loolu loolu képp la woon waaye teguñu koon ngir ngir ngir ngir ngir amul koom ak mm-hmm. wala nangam déedéet dañ ko tegoon ngir maanaam wër bi moo xawoon métti ko ba xamaat fu ñuy jëm mm-hmm. waaw loolu taxoon ñu teg ko ndeysaan mm. jërëjëf macha allah euh, wër bi moom moo xawoon a métti mm-hmm. euh, mu mel ni rek euh, saa su nekk liñ naan benn dibi yombul saa su nekk rek booy tàmbali faaw mu am ay gàllankoor faaw mu am ay jafe-jafe waaye comme ni ko olof di waxee rek xëcc bu dakkul daay day daal di dikk ñu bëgg xam nag li nga xamante ne moom moo di liggéey bi di di di euh, jaayum kafe bi mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ne ni euh, ndigal nga ci amoon mm-hmm. ndax am na beneen euh, ci liggéey boo xamante ne ni xëy na jiitu woon nga ko ndax laataa ngay tàmbale soobu ci li nga xam ne moom moo di jaay café bi wala liggéey bi mooy liggéey bi nga xamante ne ni moom nga njëkk a mm-hmm. def ci ci sag dund maanaam daal ñun daal suñ tubaa dañu dimbali maanaam buñ tàbbee suñ tubaa la ñu suñ tubaa boole café gi mosuñoo yor métier si suñ tubaa daal la amee métier waaw Sëñ Tuubaa daal la amee métier waaw loolu daal si Sëñ Tuubaa daal bu ma dikkee si Sëñ Tuubaa la ma Sëñ Tuubaa boole café gi si laa amee métier métier gi daal mooy sama métier mooy wecc joxeem café mm-hmm. waaw mooy sama métier ndeysaan <laughs> métier mii di métier café moom mooy métier comme ni ngeen ko déggee rek mm. mbokk yi nga xam ne ba tey yéen a ngi ànd ak ñun mm. euh, ñi ngi fii nii ci nga xam ne moom moo di Ridis Grand Dakar mm. fekk si fi ki nga xam ne moom moo di Serigne Mame Thierno Diallo fas yéene waxtaan ak moom ci euh, métier bu am solo bu noble bi nga xam ne moom lay def muy njaayum kafe ginnaaw bi mu ko jëlee comme ni ngeen ni mu leen ko waxee rek ci ki nga xamante ne nii moom moo di ab sëriñam am ci ndigal ñu bëgg rek wëyal nag euh, waxtaan wi tey mhm. bëgg nañu tamit nga ñëwal ñu maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne ni xëy na ndax euh, dañuy faral di wax ne mhm. euh, bépp métier boo gis rek ci kaw suuf mhm. am na ay gàllankoor am na ay jafe-jafe waaye it ba tey am na ci loo xam ne mën nañ ne ay avantage la bu fekkee métier bi am na ay jafe-jafe sëriñ maam Thierno ana yan jafe-jafe nga ñu mën a wax ci li nga xam ne moom moo di njaayam kafe mi bisimilah barke borom Tuubaa maanaam liggéey bi moom amul jafe-jafe ngir lan maanaam Sëriñ Tuubaa ciy jiital liggéey bi daal ba euh, café gi saa ñu ci jëmee mhm. Sëñ lañ ciy jiital moo tax mënuñu ci gis jafe-jafe mhm. waaw Sëñ lañ ciy jiital moo tax mënuñu ci gis jafe-jafe liggéey bi amul benn jafe-jafe moom wax dëgg yàlla mhm. maanaam daanaka moom xéewalum poos moom amuñu ko waaye xéewal maanaam am na yëng nañ Sëñ Tuubaa ci liggéey bi yëng nañ ci Sëñ Tuubaa lu tax mooy murid yëpp bëgg nañ ñu ngir Sëñ Tuubaa maanaam ku ne day bawoo fu ne ngir kafe gi lu ko waral mooy sàkk giñ ciy sàkku Sëñ Tuubaa nit ñi fekk si nañ ci loolu lañ ciy lañ ciy santaade Sëñ Tuubaa moo tax it ñu ngi ñaan suñ tubaa daal saa yu ñu tàmbali ji di si jilal suñ tubaa bu ñu koy def rek duñu si am jafe-jafe wax dëgg yàlla nag amul benn jafe-jafe bu si am mbokk taalibe yi fi teew ñu ngi koy naan di sant suñ tubaa bi ñu fi dalee wecc café ba léegi mosoo képp gis kenn ku jandi moromam képp koo gis rek mu ngi toroxlu si kanam moromam te loolu lépp lu ko waral mooy suñ tubaa comme moom jafe-jafe moom amu fi wax dëgg yàlla ñu ñëpp maase moom fi ni ku féete mag jox nañ ko lu mu yelloo ba mu mat ku féete ndaw tamit noonu daanaka bu ñu fi nekkee ba léegi daal sant Sëriñ Tuubaa lañ fi nekkee moom jafe-jafe moom wax dëgg yàlla moom ñu ngi ñaan Sëriñ Tuubaa yàlla bu mu fi am waaye amagu fi waaw jërëjëf euh, mm. jafe-jafe euh, mosoo bu leen ko fee gis te yàlla bu ngeen bu leen ko gis. Mm. comme euh, ni nga ko waxee rek. Mm. waaye ba tey it say biiru kàddu sànq dégg nañ ci wala boog jàng nañ ci nga ne bi ngeen ci amee ndigal ci li nga xam ne moom moo di wecci kafe bi sëriñ bi da leen da leen a wax ni maanaam ku am café ku am xaalis. ni ngeen ko wecci waaye ku amut it na ñëw naan. ndax fii jamono bi ni toll. ndax loolu dina jëmale kanam li nga xam ne moom moo di liggéey bi maanaam mhm. bu fekkee ñi nga xamante ne nii xëy na mhm. euh, képp kuy jaay rek mën mhm. nañ ne xëy na am na tamit loo ci séentu ndax euh, koppar yi bu takkuwul xëy na addiya gi nga wax xëy na euh, doo ko mën a joxe leneen ak leneen it doo ko mën a joxe maanaam say mébét yu rëy yi nga xam ne si kanam dinañ ci ñëw dugg ci bu baax a baax ci émission bi yi nga xamante ne nii am nga ko mu gàddu ci sa gloos yooyu yëpp amaana ab koom moo koy def ndax le fait que ku am ñëw joxe ku amul ñëw naan noonu ndax loolu euh, yakaar nga ne mën na laa génne ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi. barki borom Touba laaj nga ma lu am solo maanaam lu Sëñ Touba waxoon rek foofu la sama sëriñ fa la ko aj mooy lu Sëñ Touba waxoon maanaam seen jaamu yàlla seen ajana ajuwul seeni i jaamu yàlla seen am-am ajuwul seen i liggéey fa la fa lañ ko aj ñoom. daanaka da ngay gis murid yi ba si ñuy toog nii rek da ngay gis kenn ku joxe ñaari téeméer mhm. ne bawal ma ko foofa parce que am na ñuy ñëw si ginnaaw. du ñu yor lu ñu jëndee café comme suñ sama sëriñ lu mu waxoon comme am na ñu ko koy dimbalee fii barab bi mënoon mm-hmm. naa tudd seen tur waaye télé la du ma ko bàyyi te ñu ngi toog fii si jotaay bi dañuy yëkkati ba ci maam lamp mii di wecc xasida yi léeg-léeg day yëkkati 400 francs mm-hmm. ne ma jox ma si benn kaas li des murid yee koy barkeeloo comme loolu ñu ngi may dimbali sama sëriñ wax ju mu waxoon mu ngi dellu si waat moo waral ñun lu ñuy féetewoo mooy ku boo ñëwee boo ñu ko joxee ñu defal la ko ci café gi ku yorul fukk bu ñëwee tamit ñun boo nee café lañ bëgg tamit duñ la jandi moom da nga naan café moom parce que añ añ bi dafa sotti café gi mu sottee bu ko Sëñ Tuubaa indee la sotti fi ni nii nag ñëpp si xaj maanaam ku yor fukk ku yorul fukk ñëpp ay nandal ñëpp moom fa lañ ko teg dal jërëjëf ku yor fukk ak ku yarul fukk ñëpp ay naan bu soobee yàlla macha allah ci xéewalu sëriñ bi la ñun ñoo ko déggandoo bu baax a baax waaye tamit euh, ci wàllum kafe gi nga xam ne moom ngeen di moom ngay segg ngir mm. mën ko def euh, maanaam liquide ñu mm. mën ko jëfandikoo mm. euh, kafe googu noonu fan nga koy fàggoo ba xam yow yaa koy defaral sa bopp wala da ngay maanaam da nga koy jëndi feneen wala yow yaa koy sokkal sa bopp saafal sa bopp wala sa bopp maanaam naka nga koy fàggoo bismillah barke borom kafe gi de daa am murit boo xam ne ni ku bëgg Sëñ Tuubaa la moo ñu koy jox moom moo koy defar ba mu jekk rek mhm. daani ñu koy jox ñu dem jëli ko mu jox ñu ko ñu indi ko. gratuite lay nekk da leen koy maanaam wecci wala da leen koy may rek. Eh, ngir waaye dañ ñu koy wecci waaye dañ ñu koy yombalal. ndeysaan. ngir ngir ngir ngir ñun ñoo ko njëkkee nag moo tax mu dem mu egg ak ñun foofu waaw mm-hmm. ah, maanaam jafewul daal jafewul mm-hmm. maanaam daanaka danañ ko jëli mu du ci du si du ci du ci maanaam danañ ci gis boppam danañ ko indi danañ ci gis suñu bopp mm-hmm. danañ ko defar client yi danañ ci gis seen bopp teg lépp daal di dajawaat rek ci sëñ bi waaw ah, maanaam daal dañ dañ koy wecce dañ koy wecce am murit moo koy defar ñu dem ci moom jox ko ak xéwal mu jox ñu kafe ga ñu indi ko ñun bu ñu indee ñu daal di koy segg nag seggin boo xam ne ni ni ko Sëñ Tuubaa bëggee dant mu ne wuñ ko ñu barkeeloo ko ci rek daal di koy jox nit ñi ngir jëmmi Sëñ Tuubaa waaw Euh, jërëjëf macha allah euh, sam mbokk taalibe boo xamante ne moom it am na yéene li nga xamante ne liggéeyal sëriñ bi la moo la koy jox waaye dala koy yombalal ba mu yomb gannaaw ba doom la koy yombalal ba mu yomb nag bëggoon nañ it nga baaxee ñu ci mbirum euh, li nga xam ne moom moo di jaay kafe koom gi ndax xam naa ne fa xam nga ne fa laa jëm. Mm. ndax yaa ngi tàmbalee reetaan mm. waaye gis nañ ni saa su nekk rek léegi. Mm. ñu koy jaay bari nañ loolu ba tax na mën nañ ni mënoo séq ñetti jéego yoo gisul foo xamante ne mi ngi jaay kafe jafe mhm. ma bëggoon a xam nag lu waral loolu ba xam xëy na barkeel gi mu barkeel la mhm. wala xëy na koom gee bari ba ku ku jóg rek bëgg soobu ci li nga xam ne moom moo di njaayum café bëggoon nañ nag nga baaxee ñu ci loolu sëriñ bi maanaam jublu jublu nit ñi jóg jublu café Touba di ko wecc nekkul koom ngee tax de déedéet barkeel gu mu barkeel tax maanaam nit ñi ñuy jóg jublu mbindum sëriñ bi noonu la café gi mel maanaam barkel ge tax nit ñi jublu ko waaye te si biir barkeel bi ginnaaw lu barkeel boo nekkee si biir lépp loo ci am ne yow da nga yëg ne sa bopp lii maam lu barkeel la maanaam da nga cay da nga ne lii lu barkeel la dana la suturaal ngir jëmmi Sëñ Tuubaa maanaam da nga ci amee Sëñ Tuubaa moom waaw da nga ci amee Sëñ Tuubaa moo tax ñëpp jublu ko moo boo gisee maanaam taalibi Sëñ Tuubaa yee koy wecc maanaam lu gën a ëpp daal lu gën a ëpp taalibi Sëñ Tuubaa ko koy wecc xam lu tax maanaam alalu sëriñ bi la rek te ñoom ñoo bokk kenn ku leen moom mooy Sëñ Tuubaa moom moom kafe gi moom ñu moom ñu koy naan mhm. moo tax ñëpp boo maasee rek ñu ñaar di jaxasoo ñun ñoo bokk ndeeg baay rek kafe gi murid ñoo bokk ndeeg baay ñu jaxasoo rek moo waral nag fu àngal boo tourné fekk fa ku ko samp mhm. loolu képp la <laughs> gi dafa barkel tax na rek euh, bu fa rek gis euh, foo xamante ne ab murit moo fa sanc di ko jaay te li ci gën a neex macha allah dañuy naan kafe gi di durus te bu fekkee da ngaa gàtt alluwa ba mel na man euh, mm. di nga jàng lu bëree bëri ci li nga xam ne moom moo di jotaay bi kon mm. yaakaar naa ne lépp ak njariñ la rek na ko sëriñ bi waxee woon wajtane boo majalisa shaqaawa mm-hmm. xam naa ne majalisa shaqaawa moom buñ koy wax moom barab yu mel nii taxul ñuy wax ndax taalibi sëriñ Tuubaa xamul loolu mm-hmm. ba tax na dañuy duggaat bu baax a baax ba tey rek ndax xam naa ne foofu euh, dama ko xaw a cof laalu ma ko bu baax hmm. waaye li nga xamante ne ni moom moo di wàllum bénéfice bi nga xamante ne ni yéen a ngi koy am ci hmm. li nga xam ne moom moo de liggéey bi bëggoon nañ nga ñëwal ñu si yëf yi daal li xeet gi ñuy wax bénéfice bu dee mu ngi siy rogalaan tamit xasida lay doon xasida maanaam ñun boo boo ñu boo ñu lambee doo fekk si ñun fukki dërëm mooy si biir kër yeeg biir mm-hmm. néeg yi mm-hmm. lépp luñ ci munti am Sëñ Tuubaa rek moo ñu doy seede xasida lañ koy def. ndeysaan mm-hmm. lu tax maanaam rus rus rus rus nañ koo dajale leen na bu ñu ko defee xasida lenn na li mm-hmm. ñu képp ku am aajo moom ñu daal di ko jox. barab bi loolu moo tax mu mu murid yaa ngi. Mm-hmm. léeg-léeg da ngay gis ku war ko yor junni war ko ko am aajo mu ko. loolu lañ fi nekkee wax dëgg suñu taal moo ñu doy seede kenn suñu dencul daram dërëm maanaam lépp rek dañ koy jël di ko jox mbokk tali bi li des ñu def ko xasida di ko la jox xasida loolu bénéfice bi daal mooy loolu xasida lañ koy def dëkk daal li nga xam ne ne bénéfice bi lii la ndeysaan eh, jërëjëf macha allah am na solo lool yaakaar naa ne eh, bénéfice bi moom na eh, lépp tawféex la lépp loo xamante ne nii boo ko ci amee da nga ci dimbali li nga xamante ne nii moom moo di mbokki taalibe yi te yaakaar naa ne dimbal googu dafa bokk ci li nga xam ne moom moo di yoonu murit mm-hmm. ndax sax wax nañ ne ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Gaynde Fatma bi nga xam ne mi ngi sos daayira wàllum social boobu mm-hmm. moom moo taxoon di wàllum dimbalante bi kon yaakaar naa ne loolu dafa am solo loolu rawatina it fi nga ko daanalee ci wàllum lépp loo xamante ne ni am nga ko si rek da koy daal di ci ay xasida mu mel ni loolu moom euh, jot nañoo am sax euh, lu ñu ci leer laataa ñu fi ñëw ndax euh, def nañ ci ay gëstu yoo xam ne xam naa ne rek ci kanam tuuti incha allahu ngir mu gën a leer ci mbokk ñi nga xamante ne ni ñi ngi ànd ak ñun jamono ji rek xam naa ngir mu gën a leer seen bopp bu si kanamee incha allahu xam naa ne faaw nag ñu wan leen li nga xamante ne ni moom moo di bénéfice bi comme bénéfice yi ci ay xasida mm-hmm. euh, la koy weccee macha allahu te yaakaar naa ni euh, tijaarati la day xilanta buuraa la waxoon waaye mun nañoo àbb baat boobu indaa indaale ko ci li nga xamante ne nii moom moo di euh, li nga xamante ne nii moom ngay liggéey ndax yaakaar naa ne Euh, euh, boobu bénéfice yaakaar naa ne euh, boobu liggéey sax laa wax du mës a am li nga xam ne moom moo di pertement donte ne boo ci amul sax li nga xam ne moom moo di koom gi ci ci lu ñu mën a laal ni mm. waaye payuk sunu borom subhaanahu wa taala gi ñu ciy am rek mm. yaakaar naa ni day nekk tijaara boo xamante ne nii du du du tabuur mukk mm. comme ni ko Serigne Touba waxee rek ba tax na ñu bëgg a wéyal ba tey ci li nga xamante ne nii moom moo aju ci euh, liggéey bi euh, ci wàllum euh, maanaam yan barab ngay faral di di di di jaayee ba xam fii dafa fixe wala gis nga ni ay cérémonie comme que yow maanaam sa liggéey bi li ci gën a ëpp njariñ askan wi la jariñ mbokku taalibe la jariñ jullit ji la ku am nga jaay ko ku amul it xëy na nga euh, fexe ba nu mu naanee euh, ci li nga xam ne moom moom moo di café gi ndax da ngay faral di nekk fii rek wala ngay faral di déplacé wu lu mel ne ay cérémonie yoo xamante ne comme màggal Porokhane gi nga xamante ne ni jub si na wala màggal Touba wala ay xëy na ay weeru koor yu demee noonu ban taxawaay nga ci am ci wàllum kafe gi nga xamante ne euh, li ci ëpp da nga cey def ngir maanaam jëriñ ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di mbokki taalibe yi kafe gi de maanaam daanaka benn barab lañ toog waaw amoon nañ yéene barab yu bëri waaye loolu yëpp daanaka jël nañ lépp yooyu barab yëpp dëxañ ko si barab bi jël nañ barab yooyu yëpp ñu amoon yéene dëxañ ko si benn barab bi ngir lan ngir Sëñ Tuubaa képp nag daanaka loolu ñu naroon def ak lii yëpp benn la rek lu sak sak gi moom ñu ngi koy sàkkoo fi ñu ngi koy sa ñu ngi koy sàkkoo fii waaw ñu ngi ñu ngi koy sàkkoo fii si barabu Sëñ Tuubaa bi leneen li li may laaj mooy màggal Tuubaa bu jotee wala Poroxaan wala lu mel ni weeru koor yooyu bu jotee café gi dañ koy yóbbu ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa waaw ñun ñooy jël suñu suñu café waaw xool barab bu ñu nekkee ñun mhm. ñu ko fay dundale muy màggal gi mhm. muy weeru koor bi fi nii fii bu jotee mhm. dañ koy joxe ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa benn xaaj gi benn xaaj gi nag dañ koy jël daal di koy wecceeku beneen xaaj gi nag dañ koy jox am na ñoo xam ne dañu ñëw toog ñu barkeelu am na ñiy jël di yóbbu nag dañ leen koy wecci ngir mun a amaat ëllëg lu ñu lañ ko defarale waaye bu dee Poroxaan ak màggal Tuuba ak yeneen yu xeetoog moom. Mhm. café gi moom dañ koy duñ ko jaay moom. déedéet waaw ah. jërëjëf macha allah bu dee événement yooyu nga xamante ne yu am solo yooyu la màggal Tuuba euh, koor wala lu mel ne poroxaan rek euh, day dem yóbbu kafe gi ci li nga xamante ne nii euh, moom moo di mbokki taalibe ci barab yu sell yooyu macha allah di si jëriñ ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di jullit yi muy lu ama am solo di ñaan yàlla rek subhaanahu wa gën la kattanal amiin barke borom fépp foo xamante ne nii rek bëgg nga fa yegg nga yegg fa amiin barke ci sa biir wax wax nga ko rek am nga yéene bi waaye xëy na ne yaa ngi koy def ci bal place bi ba tax mm. na rek euh, bu nu ko ni ko kii di waxee bari la barkeel la moo ko moo moo ko gën waaye tamit ba tey bëgg nañu nag xam nañ ne dëgg yàlla euh, dëgg la mm-hmm. taalibeeg sëriñ Touba moom waxuma la am na yenn jëf yi waaye da koy jomb mm-hmm. waaye nag lan ngay wax nag Euh, ñi nga xamante ne ñi ngi yëkkati euh, euh, baaraamu tuuma di ko teg ci jaaykatu café yi wala jaaykatu ji yi nga xamante ne mhm. ngir bëgg seen koom gën a yokk ngir bëgg bu ñu investire mille francs mhm. am 5000 wala ñu am 10 000 mhm. ci bénéfice bu jéggi daya ba tax ñuy utiliser produit yoo xamante ne nii lu ci mel ne suukar boo xam ne mën nañ ni tey boo bu doon ñaari ñaar fukki kilo mhm. moom moo war a suukar barigo euh, exemple par exemple barigo kafe euh, mhm. ñoom euh, buñ ci defee ab comp rek barigo bi daal di saf sàpp te mhm. muy suukar boo xamante ne nii gis nañ ne mu ngi circuler ci ci ci biir réew mi ngir rek nit ñi di ko jëfandikoo ngir bëgg seen bénéfice gën a bëri ndax ku nekk xam na ne suukar si xaw naa cher loolu ba yenn saay bu dee da nga ci eh, def ay quantité yu bari yooyu noonu boo ko bëggee jënd maanaam bénéfice bi dina xaw a yéeme ba lan ngay wax ñi nga xamante ne nii jaaykat yu mel na yow yi nga xam ne ñi ngi leen di euh, joxoñ euh, baaraamu tuuma ci di utiliser euh, maanaam suukar boobu noonu nga xamante ne mën nañ ne bénéfice bala ciy tegu mën nañ ni sax mën nañ kaa dugal sax ci baabu riba mhm. ndax dafay jéggi dayoo mhm. suukar boobu de dégg rek laa ci am waaye ba léegi moom tegaguma ko bët suñ tubaa rek moom ma doy seede te bu ma ko gisoon tamit duma ko jënd ngir ngir ngir Sëñ Tuubaa jarul ma euh, jarul ma euh, maanaam maanaam taw Sëñ Tuubaa moo moo ma gënal loola maanaam lépp loo xam ne ni maanaam day tax ma ame si merum Sëñ Tuubaa dama koy daw léegi ñi nga xam ne dañuy def comme ni man maanaam Sëñ Tuubaa boole euh, leen ci li wecci café nañu fexe rek ba góorgóorlu si sart yi mooy nañu xam ne ne képp loo lépp loo xam ne ne rek bul ko ko si def maanaam tey jii nii boo gisoon kii jaay ñam mu ñam la am leneen loo xam ne ni boo ci demee dana yàq sa xel bul ko def lépp loo xam ne neexu la rek bul ko def léegi café gi moom ñun Sëñ Tuubaa mu ngi ñuy xool ñun Sëñ Tuubaa lañ teg suñ kanam mu ngi ñuy xool mu ngi ñuy gis moo tax sañ ñu si def lenn lu dul Sëñ Tuubaa café gi daal Sëñ Tuubaa moo ne ci biir ñun Sëñ Tuubaa lañ jël tabbil jël jël café gi tabbil ko borom biir borom Tuubaa café gi daal mu ngi ci biir Sëñ Tuubaa sañu ñoo génn na foofa leneen loolu ñi nga xam ne dañuy wecci café nañu fexe góorgóorlu ñun ñëpp tuuma moom yàgg na fii lañ ko fek mm-hmm. soobee Sëñ Tuubaa fii lañ koy bax mm-hmm. tuuma moom mun a ñàkk si bépp métier waaye moom tamit bu si amul tamit te liggéey euh, liggéey bu amul tuuma rek liggéey boobu bu baax rek dañ koy tuumal mhm. léegi nañu santaat Sëñ Tuubaa te jàpp café gii nga xam ne dañu ko booleeg moom am murid fu mu jaaxlee lu muy njëkk xalaat mooy café mhm. comme nañ fexe sart teg yoo xam ne ni moom mhm. lépp loo xam ne ni dañ ko siy def rek na doon loo xam ne ni lu gënal borom Tuubaa la daan te mënuñu ko tamit ñu góor ñu góorgóorlu rek barkeelu ci loolu képp la waaye moom café moom képp ku ciy def leneen lu lul moom café gi si boppam moo lay ni xas yi mel la mel mu naan di ko gën di gën a bëgg borom Tuubaa di naan café di gën a bëgg borom Tuubaa di naan café di gën a bëgg borom Tuubaa café ku la dàq naan moo gi maanaam mm. naan nii di dem tuur ndox déedéet mm. café gi Sëñ Tuubaa moo ñu ko indil nañ ko fonk nañ xam loolu du loo xam ne ni maanaam dañ koo jëlee fee di ko peese di defar di jaay am xaalis déedéet mm-hmm. loo xam ne ni saafara dara jey jéeli butu maraaxib am na ñoo xam ne ne am na pas-pas bu ñu naanee benn kaasu café fas si luñ bëgg dana saafaraw am nañ pas-pas boobu ñooñu ñu ngi fi comme café gi du lu ñuy caaxaane wala lu ñuy café kafe gi tamit du loo xam ne ni maanaam mhm. du ay xaalis ko tax a nit ki mun na si jublu ay mhm. aajam di faju di sutur du suturlu gudd ak bëccëg te kenn du xamal dara café gi ko a ku si gën nekk rek di def lu Sëñ Tuubaa bëgg xam na ko mhm. waaye ko si nekkee leneen tamit yow ak Sëñ Tuubaa sekk ko yow daal ndox ak suukar ngay jaay wecc waaye moom képp kuy defar café Touba ñit ñi di ko naan mhm. ñii lii loolu rek leen fi indi seen kër am na café mhm. seen i soxna mun nañoo defar kafe seen i doom mun nañoo defar café waaye lu leen fi indi mhm. mooy café gi moo leen fi indi a waxtaanee Sëñ Touba loolu képp moo leen fi indi maanaam da ngeen fekk tey ngelaw li ak ak yitte yi moo tax ñi ñaxaw waaye boo leen fi ñëwoon doo leen am fi ngeen toog yoon comme nañ xel ne kafe gi nañ képp koo xam ne ni yaa ngi si barab di am loo ci dugal leneen lu dul moom na ko baax ngir jëmmi Sëñ Tuubaa tamit boo ko boowul café gi ci boppam mooy njëkk dem bala fa loolu moom maa ngi koy sàkku si samay morom yi mel ni man mhm. Sëñ Tuubaa baaxee leen ñu ne ci kafe gi góor góorgóorlu si wàllum sart kafe gi moom man moom lu jëm si suukar moom nu mu gën a seeree dama koy wécceeku. macha allah ñoo ko déggandoo dégg nañ li nga xamante ne ni fàttali nañu ko ci maanaam li nga xamante ne ni moom moo di liggéeyum kefe gi euh, lépp loo xamante ne ni xëy na dafay safaanoo ak euh, lu sëriñ bi bëggul wala lépp loo xamante ne nii rek mën naa yàq donte ne lu lew lay doon waaye day yàq li nga xam ne da ko fay fekk rek kon yaakaar naa ni képp ku koy euh, def rek war nga koo bàyyi xel bu baax a baax waaye it bëggoon nañu dugg nag ci ñi nga xamante ne nii mën nañ ni ñooy sa deuxième famille ndax dañuy wax ne nit ku nekk fa ngay liggéeyee ñoom ñooy sa deuxième famille ndax boo xoolee sax euh, euh, temps bi nga xam ne ñoom ngay passé ak ñoom euh, doo ko passé ak sax mën nañ ne ak ñi nga xamante ne ni ñoom nga bokkal kër ñu bëggoon nag ñëw ci sa diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk taalibe yi yan relation nga am ak ñoom ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di sa ay client ñii de lu ma séq ak ñoom daal mooy sëriñ bi daanaka moom nekk nañ fi nekkin bu rafet dund nañ fi dund bu rafet lépp daal sëriñ bi daal ñu ngi ñu ngi ànd ngir jëmmi sëriñ Tuubaa moo tax mënuñoo mu kenn mënut a gis sa sikki morom maanaam daal ñu ngi si barab bi ngir lan ngir dundal maanaam lu sëriñ Tuubaa waxoon ne moytu leen maanaam barabu way texe di moo tax barab bi moom ñu ngi koy dundal lu si lu suñu kenn lu suñ bëgg lu mu bañ maam koy daw lu ñu mën maanaam ñoom ñu ngi dëkkee moom ñu nekkee moom jàmm fi nekkee ni ngeen fi ñëwee nii lañ fi nekkee bés bu ne clients yi tamit bu ñu ñëwee dañuy sopp ngir loola suñu clients yi bëgg ngir loola clients yi si boppam moom ñoom tamit nii lañ ñu bëggee comme ni ñuy toogee di bëgg moom ñun ñëpp moom maase nañ ngir jëmmi suñu tubaab bëgg lu ko waral moom maay xëy na lu ñuy sellal ngir jëm di nëbbatu di sellal xam naa ne loolu moo tax ñun ñëpp ñu clients yi daal jàmm lu ñu sekk mooy Sëñ Tuubaa dañuy ñëw ku dul ku sa murid day ñëw bëgg ñu ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ak lu ñuy dundalee kafe Sëñ Tuubaa gi ñëpp ñii moom dañ ñii tamit noonu la dundee moom Sëñ Tuubaa rek la ñuy dundee waaw génnuñu Sëñ Tuubaa ñun ñëpp Sëñ Tuubaa la ñuy dund waaw santaan nañ baax nag si fekk gi ñu fekk sax ñun ñëpp ñuy waxtaanee Sëñ Tuubaa gis ngeen yéen ñëwee da ngeen fekk ñuy waxtaanee Sëñ Tuubaa gis ngeen fii lu fi jot a rot noonu lañ koy dundee Sëñ Tuubaa rek jërë jàmm ak salaam la sekk ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di clients yi waaye ba tey jàmm ak salaam la sekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki taalibeem yi waaye comme rek ni ko olof di waxee tungu ne du teew ñuy nataal dañuy daal di rek eh, dem ci mbokki taalibe yi nga xamante ne nii mën nañ ne ñoom ñooy deuxième famille ñu daal di indi seen témoignage ci jëmm ji nga xamante ne nii moom moo di eh, Serigne eh, Mame Thierno Diallo. soxna si ñoo ngi lay fay. waaw man Abdou laa tudd. waaw euh, di nag euh, badi tànk lool euh, ci béréb bi dégg nañ leen sànq maanaam li ngeen waxtaan ak maam Thierno bu ngeen ñu laajee maanaam suñu digganteeg moom daanu sawar tontu ci lool ndax maam Thierno bari na loo xam ne sax amaana modeste gi ne ci moom moo tax waxu leen ko ci liggéey beeg jotaay bi ndax maam Thierno day jëmm joo xam ne lépp lu mu am ci liggéey bi. képp ko mu bokkal sëriñ Touba xam nga ko ci xasida ak xasida gu ñuy wax jaalibati maraqib ak ni mu ci mel li mu leen wax ne maanaam utul bénéfice ci liggéey bi dëgg la ndax lépp lu mu fi am ci sëriñ Touba la koy delloo ndax xam nga maanaam man damay wax ne gannaaw daaray kaamil gi nga xam ni sëñ Abdoulaat maanaam euh, def na ko Touba ci moom laa mës a gisee mbokk taalibe boo xam ne jël na appartement jëlal ko xasida dugal fa ay xasida lenn newu fa dudul xasida sëriñ Touba yi ak ay kaamil ci valeur loo xam ne wóor na ma wóoral yàlla damay bañ juum waaye ay millions yi millions yi millions yi millions la yoo xam ne su ko defoon ci compte bancaire ñëpp xam ne borom alal la te loolu dama ne gannaaw sëñ Abdoulaat ci jëmmam dong laa ko gisee ku jël appartement Ndakaaru dëkkaloo fa lenn dudul ay xasida sëriñ Touba def fa ay ventilateur ñu koy upp guddi ak bëccëg maanaam lépp lu mu am daal lépp lu mu am moom jox na ko xasida Serigne Touba yi te kooku képp ku mu bokkal Serigne Touba xam nga loolu ci moom moom la ñuy tuddee maam Thierno Dialibati Madaxib te kafe gi it maanaam ñun ba ñuy jébbalu amaana ñoom ay gone yu ndaw lañu ndax ñun 78 la ñu jébbalu ci jëmm ji ñuy wax sëñ Ousmane Mbacke bu maam Thierno Birahim Mbacke du kon jamono yooyu ñoom ay gone yu tuuti lañu waaye maanaam wóor na ma wóoral yàlla ne kafe gii muy defar fii tey. képp ku ci naan ku ne aajo boo am Serigne Touba dana ko faj ndax kafe gu ñuy segge jaalibatu maraqib bi yombul de kafe gu ñuy segge jaalibatu maraqib bi yombul te bërëb bii it dama leen di wax ne maanaam béréb la boo xam ne maanaam euh, sëriñ Touba ci jëmmi boppam dafa bokk ci pàkk yi mu gërëm béréb bii ñu toog nii ndax kenn du fi mooy yàlla kenn du fi def sëriñ Serigne Touba bëggut kenn du fi def lu dëppawut ak diine jàng xasida alxuraan waxtaan ci Serigne Touba moom lañ fiy xëye moom lañ fiy yendoo moom lañ fiy fanaane maam Thierno nag lépp lu mu am ci café gi li mu leen wax rek ay dëgg bëggul mbubu bëggul dàll bëggul dara lu mu am lu ne dañ ko ko may te yéen teewe ngeen fii léegi léegi léegi rajo bii tege dañ ko koo jox addiya ñetti kaamil yee tege fee dañ ko koo jox addiya te dama ne la bérébam boobu laa lay wax nii boo fa demoon xam ne Serigne Touba gi mu gëm dëgg la ci moom xasida yi moom dong mooy alalam bañ na ko ba maanaam soxna si nga xam ne moom la ko yàlla booleel sax man damay wax ne moom ameel na ko àq ndax maanaam am sa boroom kër te lu mu mën a am lu ne du la xalaat ci dara lépp lu mu am def na ko ci xasida yi Serigne Touba yi man damay faral di ko wax ne ko maanaam moom Serigne Touba moo koy yoral boppam maam Thierno nag fii ñun ñëpp ay mbokki taalibe lañu sëriñ Touba rek lañu seex xale yi fii daje yëpp ay ay am na fii ay docteur am na fi ñoo xam ne ñu ngi ak seen i master 1 master 2 waaye boo ñëwee data du feeñ taalibe gi rek ngay gis waaye nag fii moom <laughs> maanaam euh, tubaab kàlla daal waaw mbooloo mu sëriñ Tuubaa gërëm a ngi fi nag muy mag ak ndaw ak lépp ñun ñëpp benn lañ waaw fii lépp lu ñu am ñun ñëpp ñoo ko bokk te sëriñ tubaa rek lañ fiy dund waaw. loolu daal laa bëggoon a euh, def témoignage ci maanaam maam Thierno moom bëgg sëriñ Tuubaa am képp ku ko xam te yaakaar sëriñ tubaa xam nga ne dëgg la ci moom. loolu daal moom lañ doon seede ci moom mooy. delloo siyaar bu baax soxna si maam Lamp Thiaw waaw gannaaw sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba bu baax di gërëm maam Cheikh Rahim Fall xam ni suñu diggante maam Thiaw moom doonatul. bokk bo xamante wala ay couleur wala dañoo bokk di dund sëriñ bi rek dañ ko fekk ci sëriñ bi nekk moom ci sëriñ bi ñeeko di fi jëflante jëflante bu rafet boo xam ne li ñuy def lépp amul benn lu ñuy def loo xam ne dañ koy yëgoo wala ñu déggoo ko wala ñuy am benn xaar ma yàlla bu di wax suñu diggante sëriñ bi rek la ñuy dund moom mm, jàng ci xasida yi naan ci café gi waxtaane sëriñ Tuubaa rek rek lañ fi def waaw moom muy mu fi ko fekk waaye moo ñu dalal te moo ñu yaatal parce que bu ko xataloon kon ñun ñëpp duñ fi dooñu fekk sax yow mën naa am nañu jaar dem comme ni ñëpp di jaarale dem waaye ilaa ñu bañ fee ñëw sax waaye nag dañoo yaatal wax dëgg ci Yàlla loolu daal nga koy seeral ak bëgg Sëriñ Tuubaa am bëgg xas day nag te am fula ci liggéey bi bu baax itam nag dina kaf dina ree waaye liggéey moom da koo bëgg. nungul kenn ku ko ci yàqal dara lu toll ni tar fatulay ni wax dëgg ci loolu moom xam nañ ko ci moom baax waaw waaw ñu lay fay Matar Ndiaye euh, jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou jarol ak Cheikh Béthio fii moom jotaayu murit la sunu mbokkum taalibe maam Thierno Diallo euh, di fi wecceeku Café Touba ah te Café Touba moo ñu yitteel ñun murit waaw mu nekk jëmm joo xam ne it maanaam neex naa ñeme ndax jëmm la joo xam ne lu dul Sëriñ Touba ñoru ko te it murit yi moom dañoom am fulla maanaam boo leen wanee sëriñ bi rek maanaam am leen day yomb waaw ba tax na moom fii ñun ñëpp ku si ne am na kër goo ne waaye mënut a feeñ loolu mënul feeñ waaw loolu mënut a feeñ suñu biir ndax euh, dox ni ñuy doxee maanaam doxin bi euh, maanaam dafa sell doxin bi dafa sell lool. ba tax na ñun jëpp ku si ne ñeme nga sa morom waaw ni ko euh, ñi ñi jiitu waxee rek lu waay bëgg ci sa morom xanaa du ko yëgul mais bu ko yëgee rek mu saafaru ba tax na témoignage yooyu mënut a ñàkk ba tax na ñun ñu nit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii maanaam dafa bokk ci yëf yi ndax nit ñi dañuy romb rek xamuñu lu fi xew waaye ñi fi nekk ñëpp. ku si am na ci loo yëngu ku si ne it sëñ Tuubaa la ku si ne sëñ la bu wér a wér a loolu tamit foofu mu leer ñi fi toog euh, ku si sëñ bi dimbali bu wér a wér a wér ba tax na it ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci seen ñëw fii di sant it mbokku taalibe yi fii daje di sant it sunu sëriñ Cheikh Béthio ndax moom it. moo ñu bëggloo Café Touba moo ñu bëggloo xasida kon jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi macha allah euh, ñun ñoo ko gisandoo euh, témoignage yu am solo yi nga xamante ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di ahlu euh, jaalibatul maraarib ndax mu mel ne barab bi sax noonu lañ leen tuddee mm. def nañ ko ci jëmm ji nga xam ne moom moo di Serigne Mame no Diallo macha allah. ci maanaam euh, euh, li nga xam ne moom la séq ak ñoom waaye euh, li nga xam ne seedeel nañ ko ko ci bëgg a ku tedd ki ci bëgg Serigne Touba waaye rawatina nag li nga xam ne moom moo di xasaayid yi ndax ci tàmbale bi euh, junjoon nañ leen ko euh, def nañ ay investigation ci moom laataa ñuy ñëw waaye gis nañ ne euh, li nga xamante ne ni moom moo di liggéey bi yemalewu ko ci li nga xamante ne ni moom moo di jaay kafe kese waaye gën naa sori loolu ndax yaakaar naa ne liggéey sax gënul kawe loolu liggéey gënul màgg loolu muy këru xasida gi wala appartement bi nga xamante ne ni maanaam luye na ko di ko fay chaque fin du mois te dugalu fa euh, soxna dugalu fa ak njabootam waaye li mu fa def moom moo di alquranul karim li mu fa def moom moo di ay xasaayit yoo xam ne kenn xamul ni mu toll macha allah euh, lépp loo xam ne am na ko ci liggéey bi rek xalaatu ci kër xalaatu ci oto waaye sànq euh, dégg ngeen témoignage boobu mu ngi toll ci ay millions mu daal di koy jël investir ko ci li nga xam ne moom moo di xasida yi kon yaakaar naa ne liggéey gënul kawe loolu liggéey gënul màgg loolu faw nag kon sëriñ bi nga leeral ñu maanaam. Euh, yéene boobu noonu naka la la dikkee idée boobu euh, luye appartement euh, dugal ci li nga xam ne moom moo di xasida yi te lépp loo am rek ci li nga xam ne yaa ngi koy liggéey nga daal di koy investir ci loolu loolu naka la la dikkalee. bismillah barke borom Tuubaa loolu de du xel mënu koo xalaat daanaka am ndimbalum sëriñ bi la maanaam saa yoo xëyee lépp loo faraatu lu mu munti toll nga daal koy jël. jënd ko xasida loolu xel xalaatu loolu Sëñ Tuubaa moo ko def sama xel waaye moom loolu sama xel dëgg xalaatu ko saa yu ma Sëñ Tuubaa bés bés bu ma Sëñ Tuubaa sàkk rek bés boobu noonu danaa jël li ma yor nu mu munti toll dama wecc ko xasida bés boobu du ma ko tubal. kon amul bës boo dul xëy te doo weccu. xasida déedéet xalaatu ko. xasida yi fan nga koy kan moo la koy wecc. daanaka léeg-léeg dama wecc ko si maam làmp mhm. mooy murit bi léeg ma dem si. ñaar tali si Massamba léeg foo xam ne nii daal xam naa dañ fay wecc xasida Sëriñ Tuubaa wala Masaalikul Jinaan dama koy fay wecceeku ci kii di Ahmadou ñoom ñëpp xam nañ ma mhm. képp ku seetaan émission bi dina xam ne li ma wax tëgg ma si dara dëgg la jaay naa fi samay mbubb jënd ko xasida ci murid yi doy nañ ma seede mhm. jaay naa samay dàll jënd ko xasida mhm. jaay naa sama portable jënd ko xasida nit ñëw na fi fekk fi ma yor portable buy jër junni mu ne ma ñaata mën naa si benn jalibutu ma jox nit fekke na ma yor jar porra bu jar vingt cinq mille mu ne ma benn jalibutu ngi nii ma ko indi ma jox loolu ay yoonu yoon mhm. ñun daal lu man daal loolu xasida moom dama koo dundul wax dëgg yalla suñu tubaa rek moo ma doy seede mhm. léegi ginnaaw loola ginnaaw ñu e xasida yi mooy lépp suñ tubaa comme lépp suñ tubaa ko war a warmal mhm. moo taxit man bés bu yàlla sàkk balaa maa dugg sama kër dinaa fa yóbbu xasida moo xam xasida gu m munti doon waaye depuis bu ma ko dalee def ak léegi nag mooy depuis bu ma dalee wecc café ba léegi laa ko tax ma lay def te dama mhm. def ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa moo tax ma koy def sàkku ma si dërëmu kenn wala lenn kenn mhm. déedéet maanaam ñun ñëpp xam na ni Sëriñ moo ko moom mhm. comme du nekkatul alalu maam Cerno jaaliwut alalu Sëriñ Tuubaa la murid yëpp si war a dem ñoo xam noo si mën a demee nag moo xam ndax da ngay ut parfum di ko si def mhm. wala di ut ay cuuraay di ko fa yóbbu wala di ut dañuy soxla foofu ay lalukaay yu nooy mhm. ak yeneen yu mel noonu loolu nag alalu suñ tubaala du alalu kenn mhm. képp ku si jàpp suñ tubaa nga ko defal sa bopp nga ko defal loolu nag mooy laana laaj laaj boo xam ne ni moom ndeysaan waaw macha allah kéemaan la wax dëgg yàlla wala tawféex sax laa ko mën a tuddee wax dëgg yàlla euh, te bés boo xamante ne nii moom dem na ba jaayante ne ne bés du ma tëdd ci lal te fàgguwuma benn xasida yóbbu ko ci mi nga xam ne moom moo di kees ga ma leen di wax ni mm. Mm. Eh, da ko luye eh, chaque mois di ko fay ndax eh, lan ndax di fa dugal li nga xam ne moom moo di xasida yi mais mm. loolu naka la demee histoire bi ndax da nga daan def saa yoo xëyee fàggu benn xasida nga dem ba xëy na gis nga ni bibliothèque bi nga ko daan dugal sa kees sa kër xajatu fa wala gis nga ne amatul espace ci kër gi mm. nga ne man kat naa fàggu euh, mm. benn appartement ngir lan ngir euh, xaside yi mm. euh, wala danga nga jékki-jékki rek idée bi ñëw la nga ne ñëw ñëw sa bopp nga ne non man dama bëgg am benn appartement boo xam ne naka la maanaam dangaa dem ba mbir mi ëpp la doole ci sa diwaan wala sa bibliothèque moo xam fi nga daan denc xaside yi nga xam ne kat mbir mi war naa gën a mën a yaatu lii nga ne naa fàggu appartement bëggoon nañ tamit nga indil ñu foofu ay leeral ci maanaam idée bi naka la la dikkale doon saa yu ma xëyee li ma la njëkkoon wax damay wecceeku ab xasida si Jaalibatul nag laa ko gënoon laa ko laa ko laa ko doon def waaye dafa dem ba xasida yëpp nag léegi laay wecceeku lu Sëñ Tuubaa bind ba ci alxuraan gi dama koy wecceeku waaye dafa dem ba fi ma ne woon diwaan bi ma ne woon muy su may nekk ak samay njaboot mu daal di dem ak gaal gi ma dem ba xool yëf yi dem na ba ëppi loxo gaal ga fees na bibliothèque bi fees na léegi nan laa ko war a mën a def ma ñaan Sëñ Tuubaa ne lii yàlla nañ beroo man mu ne si barabam man ma ne sama barab si mu gën a yokk nag si biir loola bés bu ne daanaka damaa wax benn xasida waaye bés bu ne daanaka danaa dem ba si fukki jëliwutu yu may di ëpp doole nag ma ne naa ut fu ma ko def si la fàggoo appartement bene daal di jël salle bi yokk xasida yi di leneen li ma daal di koy féetuwu nga xam ne dalal jëmm ji waaye fi xasida kenn du fa dal kenn du fa tëdd lan la da ngay ñëw mun a toog durus boo noppee daal di yeewee ko wala nit ñëw siyaare barab Euh, maanaam euh, dafa am mbokk taaliba yoo xam ne yenn saa bu ñu bëggee durus da nga leen koy ubbil ñu daal di fay dugg durus bu ñu noppee eh, delluwaat delluwaat mm-hmm. waaw loolu léeg-léeg day am ku bëgg durus ñëw toog ci biir mm-hmm. mu durus bu noppee ma tëjaat barab ba mm-hmm. yan yan yan waxtu la ñuy faral wala amul amul amul temps boo xamante ne nii heure bu waaye mën a neex rek waaw amul waxtu waxtu bu ne rek fu ma nit nit ma nit woowoon téléphone ne ma kër sa kër laa jëmoon fu ma munti ne dama ko ne naa ma yor seen i xéwal di mhm. la dañ koy mhm. feral di ne dañuy yor si yéene ko fa dugal te képp koo xam ne ne mosu nga def tamit mhm. yow leer na la suñu tubaab nga ko defal te rëccu woo parce que alalu suñu tubaab la wér na moom te man mi kenn du ma si jiitu wér na parce que jamonoy tàngoor bu xasee soxlee ventilo man maa jënd ventilo mu yàqu mhm, ndeysaan bis toppaat mu yàquwaat ma jënd ko bu dem ba ci biir ma jënd leen climatiseur monté ko boo leen demee na ngeen ko gisal seen bopp <laughs> jërëjëf euh, macha allah euh, dégg ngeen bu baax a baax ci ni nga xamante ne nii noonu la ko idée euh, kër maanaam appartement boobu nga xam ne fa lay def xasida yi dikkale lépp yéeneem bu rek waaye dafa mel ne da nga ne ma bi ngay door a tàmbalee loolu ay jaalibatu doo nga fa daan dugal mm. waaye dangaa dem ba ci eh, kanam nga xam ne kat eh, jot nañu yaatal ko ba yeneen xasida yi nga leen di tàbbal te it biñ ñëwee fi ci mbaar mi gis nañ nga bind fi ahlu jaalibatul maraaxib mu mel ne sa digganteeg jaalibatul maraaxib moom c'est une longue histoire xam naa du ñàkk nag nga baaxee ci loolu ndax gis nañ ñi sax ba tey eh, man maay wax sax sëriñ Maam Thierno Diallo rek mais daa mel ne Serigne Maam Thierno maraaxib lañ laa fiy dégg sànq ba tey ñu ngi ciy tub bu baax a baax kon yaakaar naa ne sa digganteeg jaalibatul Jàlbatul Maraxib moom euh, xam naa ne am na lu ci nekk du ñàkk nag balaa ñuy tàggoo nga baaxee ñu ci rek euh, ci sa digganteeg xasida googu. loolu de lañ ci mënut a sori moom waaye danañ ci barkeel as tuut mooy Jàlbatul Maraxib kooku tamit sama sëriñ moo moo si jox ndigal. moo ko yëkkati jox ma ko mun ne ma dee leen ko jàng foofu soow euh, maanaam baax na ci. mooy ki la jox ndigalu café gi ndeysaan <laughs> moo ma jox Jàlbatul bi ne boobu sama sama sama sama soxna ngi toog mun ne ma fexeel nga mokkal ko te dana leen dimbali soow googu ngeen ne. da ngeen mën a teg su li suñ tubaab bëgg ba doo leen wàcc yoon ma daal di jël xasida gi nag man def ko comme ni ko waxee di ko di ko jàng li ma ci mun di ko jàng di ma ci mun da dem ba suñ tubaab taw féex la nag maanaam am na luñ ci jot a def suñ dënn ñu santaatee ko suñ suñ tubaab bu baax waaye xasida gi dama ci mënut a sori mooy lépp li café gi moom moom moom balaa balaa balaa café gi nii ma siy doxee tey yi nii jaalibutu moom moom may gi nii ma siy dem ak jaxasoo gi mu mën a jaxasoo nit ñi Sëñ Tuubaa dimbali na ma jaalibutu moom koy may for naa ci weewu bay sax ñu ne ma booy segg café gi mm. eh, jaalibatu nga koy seggee ba mu jeex loolu loolu ñàkk naan ci café gi nag wóorul de sëriñ laay loolu loolu loolu maanaam loolu jaalibutu la ñuy segg fi mu bu ñuy xëy su may xëy fajar gi dama sama jaalibutu lay tëri mm-hmm. ngir lan dégg di ko tari ba keroog may segg muy yegg ma tufli ko ci ñaanal képp koo xam ne ne naan nga ci café gi wala gis nga kii naan café gi may ñaan yàlla suñu tubaab waaye waxuñu ne mu dana am déedéet suñu yéene waaw suñu yéene la képp koo xam ne naan na café gi yàlla na aajom faju lim ci bëgg la yàlla na ko am maanaam ñun mënuñu ko waaye suñu yéene moom la ñuy fësal noonu te ñu bëgg nañ mu am loolu ñu wax mu am waaye jaalibitu maraaxib moom lépp buñ leen jóoroon ker keraan gi leen di keral mooy jël bitu mu ret booloo gi ñuy booloo di sant Sëñ Tuubaa nañ santaat Sëñ Tuubaa parce que Sëñ Tuubaa bu mu bindee jël bitu mu ret moom moom moom moom la xooloon liggéey comme jël bitu si boppam mooy Baay Faalu xasida yi mooy Baay Faalu xasida yi képp koo xam ne ne jàng jël bitu nag yow li may wax ni moom moo koy mën a xam kii jàng jël bitu moo ko mën a xam wala kii tàkkoo jànkatu jël bitu te iñaanul ndeysaan moo ko mën a bihi xabla tawajjuhu lahin ila siwa xaari yi antal muñ yow yàlla daqal seytaan mu jublu keneen ku dul jànkatu jëlbitu maraaxib mm. xanaa jar na jàng jëlbitu maraaxib jar na ko ndeysaan ndeysaan wa dafa bii xabla tawajjuhu lahin ila siwa xaari yi antal muhim xanaa loolu jar na dem jëndi jëlbitu sin mm, benn jëlbitu maraaxib ndeysaan man nag daanaka xaw ma lépp sëriñ bi waaye mun naa barkeelu si kàddu googu serin bi mooy man jëlbitu dama si mun ta sori mm-hmm. waaye moom leer na ma moom képp ku jàng jël kuy jàng jëlbitu maraaxib munoo bokk ak ki ko jàng ndeysaan <laughs> ndeysaan ki jàng jëlbatu mënut a bokk ki jàngul jëlbatu ñun nag ñu ngi ñaan suñu tubaab yàlla ñu bokk si koy jàng amiin waxuma la koy jàng waaye bëgg naa si bokk yaa ngi ci biir waaw dama dama a bokk waaye moom mbindum suñu tubaab boobu di jëlbatu moom moom a sori moom waaye moom daanaka ma daaneel foofu kàddu yi waaye moom ñaan naa murit yëpp danta benn way la juñ xëyee daal di ko si barkeelu danta benn way boo mun a am am benn way nanga ko am sa kër nanga ko am sa kër jëlbatu nanga ko wecceeku teg ko sa moo la fay newal ndeysaan moo la fay newal moom moom jaalibatu moo la fay newal mhm. waaye moom dañ ci munta a sori waaye moom xam naa ne moom su ma si naree sori daanaka dana xaw a kii dana xaw a dëñ ndeysaan euh, jërëjëf macha allah am na solo lool ci euh, loolu nga xam ne indi na ko ci digganteeg jaalibatul maraaxib dégg ngeen lim ci wax bu baax a baax ndax euh, sëriñ bi moom comme ni mu ko waxee rek wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaaliin wajhi rabbi ndeysaan yaakaar naa ne loolu rek dafa dafa dafa ëmb lépp ñu ko ci jaajëfal bu baax a baax waaye xam ngeen rek li duuf ci nag bi yëpp nag xajul ci cin bi amoon nañ yéene gën a yaatal waaye yoon yamul ci benn xam signalé ne li des ci waxtu bi néew na lool dañ lay bàyyi rek euh, nga daal joxe sa kàddu gu mujj macha allah. ma tàmbalee woon rek lay tëjaat mooy maam Thierno Jaalibatu Maraaxib moom taalibe si murid yëpp ñu ñaanal ko damay sàkku si ñaanu si murid ñu ñaanal ma ma yàgg fi te wér te sax si liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom moom lay sàkku si murid yëpp te maa ngi ñaan maanaam émission bi képp ku ko teg bët maa ngi ñaan si kattanum Sëriñ Tuubaa ak mbaaxam yàlla boo tële yàlla boo foo toll daal li ngay sàkku si Sëñ Tuubaa yàlla na ngay am foo toll ak képp koo xam ne ne sax maanaam déglu nga Bichri maanaam Bichri TV daal dégg nga ko rek say aajo yëpp nay faju si barki jëlibatu maraxib waaw macha allah mbokk yi doon ànd ak ñun ci seen télévision ba Fatihul Bichri TV rawatina seen émission bi nga xam ne moom moo di xidma ak l'islam euh, nga xamante ne tey ñi ngi ñëwoon fii ci euh, Grand Dakar rue 10 fekk si fi euh, kuy wuyoo ci euh, Serigne Mame Thierno Diallo Maraarib macha allah di yëngu ci li nga xam ne nii moom moo di njaayum kafe ñu fekk si fi woon rek macha allah euh, jëmm ju tedd jooju waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne nii rek dafa aju ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi naka la ci duggee jafe-jafe yi avantage yeeg lépp loo xamante ne nii rek maanaam dafa soxal li nga xam ne moom moo di métier bu noble boobu di njaayum kafe rek dugg nañ ci bu baax a baax jox euh, dig daje incha allahu beneen semaine ci seen beneen numéro xidma ak l'islam di leen wax rek saa su nekk euh, Mafatihul Bichri TV euh, jox nañ ma li nga xam ne moom moo di caabi ji yow mi jàkkaarloog man sa kanamu écran rek tey daan sa doole foo di fekk rek xamal ne dinañ ma fa yebal incha allah ñu jàkkaarloo ak yow daal di waxtaan ci li nga xamante ne nii moom moo di métier bi xam naa di leen jox rek dig daje beneen yoon incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi yow nanga nu may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nu ifegali mooy fawaka booleeki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla mi tere deful li yàlla mi digle asal ferul li ijji sax dalul ku dem fi ab jaxam dërëm du la jariñ amub dërëm moo lay jariñ moo tax ku xam te jëfewul xamul amul koo seeru xam na ab dërëm ba noppi tey wutub dërëm doo gis ku doy loo xam dërëm wali si wutib dërëm wutil sëriñ bi yow nanga nu may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nu fegali mooy fawaka boolee ki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla mi tere deful li yàlla mi digle as